bi ñu def nii ak Camon 18 dafa ànd ak slogan bu bees bu ñuy wax techno stop at nothing techno stop at nothing mooy dara duñu téye techno dara duñu téye lan moo waral loolu li waral loolu mooy techno li mu toll fi mu toll nii ci jamono ji ak euh, innovation technologique yi mu indi ci marché bi moo waral ñu mën a imposer suñu bopp ci marché bi. innovation wu tey bi comme niñ koy defee toujours par rapport ak euh, série bi nga xam ne mooy Camon day reposer toujours ci caméra yi tey kamoon téléphone la boo xam ne téléphone haut de gamme la boo xam ne particularité mooy caméra yu performant caméra yu clair caméra yoo xam ne seeni photo dafay rapproché wu toujours un peu plus des caméras professionnelles que que que qu'utilisent les professionnels de de de de dans le domaine. donc caméra bii nii tey particularité mooy dañ ko euh, booleek li ñuy wax caméra à cadran caméra la boo xam ne boo ciy jël photo wala vidéo moo xam cible buy déplacé wu wala yow ngay déplacé wu secousse yi nga xam ni dafa doon am ci vidéo bi caméra bi daf koy éliminer parce que dañu ko def de telle sorte que cadran bi day bouger mooy caméra bi yow li ngay gis ci biti lu fixe la mais en interne day def ay mouvement yoo xam ne day annuler yow sa tremblement yi ñi nga xam ne dañu am problème bu ñuy jël photo di lox wala bu ñuy jël vidéo di lox ñoom la ñu téléphone bi nii nga xam ni solution la ci ñoom wala kuy jël téléphone boo xam ne c'est da ngay jël cible buy déplacé wu moo xam kuy football wala yu mel noonu donc téléphone bi mooy sa solution. donc euh, du benn téléphone rek lañu génne wax nañ Camon 18 mais am na aussi Spark 8 Spark 8 bi aussi téléphone la boo xam ne moom pour jeunes yi la. en général jeunes yi ñoom la gën a intéressé moo xam suñu rak élèves étudiants yi la wala aussi ñi nga xam ni même nekkuñ ci cadre boobu noonu mais qui ont des budgets peut-être de moins de cent francs on leur donne tey opportunité wu ñu am téléphone yoo xam ne moins cher mais avec technologie de pointe yëpp intégré loolu moom mooy ñaari modèles yi ñu doon lancé. alors prix yi nga def toujours pour ñun Tekno en général li ñu soxal dëgg. mooy fexe ba képp ku ci ne selon sa gafaga nu mu toll nga mën a am sa téléphone. e technologie doonatut loo xam ne lu jafe la warut a doon loo xam ne lu cher la lu nit ñi mënut a jot donc ñetti téléphones yi ak li ñu leen ci wax ci spécification yëpp bi ci gën a yomb 128 giga RAM 4 ñi ngi koy jaayee 108000 francs kese. bi nga xam ne moo ci topp di 128 giga ak RAM 8 muy Camon 18P bi boobu ñu ngi koy jaayee 135000 bi nga xam ne nag moom mooy euh, daj dëpp gi muy Camon 18 premier bi 256 giga RAM 8 avec caméra à cadran bi boobu ñu ngi koy jaayee 195000 francs donc loolu moom mooy prix yi nga xam ne moom la ñu lancé ak téléphone bii nii. su fekkee Tecno la Tecno mi ngi euh, généré plus de 900 points de vente. yoo xam ne nii ñu ngi ñu ngi koom ci Sénégal bi yëpp parce que Tecno du Dakar kese Tecno Dakar la ak toutes les régions du Sénégal et dans ce 900 points de vente on a plus de 600 boutiques qui sont des boutiques agréées voilà maanaam am nañu lu ëpp juróom-benni téeméeru point de vente yoo xam ne nii dañ fay am suñuy staff personnel à savoir les superviseurs et les promoteurs yoo xam ne nii ñoom ñoo ñu général tout ce qui est accueil vente suivi évaluation. voilà ci wàllum xëy mi ñu ngi générer entre deux cent cinquante et cent emploi yoo xamee ni Tekno moom mi ngi koy contribuer ci euh, euh, ci réew mi. partenariat ak Orange bi li ko waral parce que dañoo gis ne Orange nekk na premier opérateur téléphonique ici au Sénégal et qui dit téléphone di puce. donc dañu gis ne bu ñu amee boobu partenariat ak opérateur bi nga xam ne moom moo gën a mag tey ci Sénégal dinañu permettre ñun ñu gën a écouler suñuy point de vente parce que tamit. ni Tecno amee ay point de vente am noonu la Orange amee ay point de vente am yoo xam fa lay jaay ay puces ak ay forfaits ak tout ce qui est euh, divers yoo xam dina permettre mu gën a propulser marque Orange à notre aussi comme on a le même euh, les les mêmes paramètres pour jëmale suñu business ci kanam ñu jugé nécessaire ñu ci da génn gagnant gagnant. techno acteur bu important la ci marché sénégalais bi suñu client yu bëri te ay téléphone techno la ñu yor léegi nañ client yu bees yi bu ñu ñëwee am téléphone yu baax yu mucc ay ñu mun am 4 bi profiter ci de la meilleure des façons donc li ñu bëgg mooy client yu bees yëpp yu jënd Camon bi ñu amaale plus 4 orange am passe de bienvenue bu ñu leen di may comme ça ñu mun utiliser ay téléphone techno suñu clients yu bëri ay téléphone techno lañ yor donc c' important que acteur bu mel noonu ñu liggéey moom xool ñun ñaar ku nekk ni muy mayee sa morom doole pour ñu gën a avancer. dañu nekk en partenariat ak Orange te lu lu la ci ñun di liggéey ak ñi nga xamante ne ñoo nekk parmi les meilleurs ci domaine bi ñuy yëngu muy télécommunication donc euh, partenariat boobu mi ngi basé exclusivement ci euh, connexion képp ku jënd suñuy produit mu nekk ci téléphone ci boutique Techno wala boutique Orange am nga automatiquement don wu connexion au débit euh, bu ñuy may suñuy client waa di kontaan bu baax a baax euh, di kontaanaat encore une fois ci teew bi nga xam ni moom la ñu teew fii donc dama ñëw fekk si euh, produit bu nit ñi bëgg fekk si produit bu neex a jaay donc bu ma ci ñëwee teg ci sama loxo li olof Ndiaye naan bërigo ci mbartal teg loxo mu dem ñàkk teg loxo mu dem donc yàlla dimbali ñu euh, daal di ñuy suturaal ñu ànd ak Tekno mu gën a dox. et vraiment dafay nekk contentement chaque année contentement chaque fois euh, produit bu bees di génn ñu ñëw parce que euh, produit la boo xam ni boo ko jaayee doo ci am lenn looy ruus parce que la nga ciy xalaat yëpp mu ngi ci biir am na qualité bu baax am na li nga xam ne rek ñu da koy soxla ci téléphone bu utiliser li nga xam ni moom mooy. techno fekk ko fi et chaque fois ñuy créer lu bees di ko indi dañuy gën a renforcer li nga xam ni moom mooy gën ci téléphone yi donc euh, vraiment di ko jaay daf may neex parce que mënoo ko jaay bu rus quoi euh, boo ko jaayee da ngay fier ci sa bopp fier ci waa techno quoi.